salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu ak tey baal ak ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk dellu saan nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam dégg ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mu ngi jëm ci waa Pastef rek ci. fan yii li nga xam ne am na ci parti bi muy li nu jàpp ci ay partisans daanaka xaw na jéggi dayo lool te ñu ci bare bari te ji yaakaar naa génn na wax na ñu bare bari ne xañ na ñenn ñi ñu ngi leen jàppe ci ay wax joo xamante ni dafa wut ak yoon ba tudd na ci ku ci mel ni li nga xam ne moo di maire maire bi nga xam ne dafa nekk Kër Massar ñu ne ñun ciy jàpp ñaare dañuy wax xale yi influencé leen génn leen ñenn ñi di wax ci chef de l'État wala ñenn ñi di wax ci wax joo xamante ni te loolu jàpp naa ne <laughs> du parti euh, Pastef rek waaye parti bi nga xam ne moo di parti APR yi tamit kenn demul mu des Euh, man na ne sax ñoom lu njiit njaaga ñoom lay doon sax ndax yim ñemee wax te li tax ñu ñeme ko wax mooy li nekk ci seen ginnaaw ak li leen protéger waa Pastef nag amuñu ñu leen protéger wax da yàlla xañ na euh, bu ko defee dañuy jëm ci kàddu rek jëm mi wax wax kàddu sun boroom lim nu ci digal ak li ci nit ki war a mën a jàng ak wax jan moo am njariñ ak jan wax moo amul njëriñ xam ngeen làmmañ sun borom daf koo fonk <coughs> ba daf koo wutal Koundonuwaa da ko wutal kër ab appartement bu mu nekk appartement boobu mu wutal ko ay giri giri moom làmmañ mu wutal ko giri ci biir ñu ne déet waaye mu wutalaat ko ay tuñ ngir mu doon ab bunt ñu ne déete waaye mu wut ab sikkim boo xam ne da ko fay teg ngir gardien ngir làmmañ balaa jóg rek war na contrôler bu baax euh, kàddu yi nag dafa bari ay façon boo doon wax nit wax waaye ji ci am njariñ dinañ ko segg wax ko xam ngeen ne wolof yi dañuy wax ni wax ju rafet sarax la wax ju rafet sarax la am na ñoo xamante ni kàddu yi ñuy wax kàddu yu dëgg la am na ñoo xamante ni seen wax wax boo ko settantelee wax ju yaru lay doon ñenn ñi nga gis seeni wax wax ju yiw lay doon ñenn ñi nga gis seeni wax wax la joo xamante ni ju wér lay doon ñenn ñi nga gis seeni wax wax joo xamante ni suñ ko doon wax dañuy wax ne wax ju ñàkk teggin lay doon ñenn ñi di waxee tamit li nga xam ne moo di waxi reewande ñenn ñi di wax wax joo xamante ni wax ju ñaaw la ñenn ñi di wax wax joo xamante ni waxi caaxaan rek lay doon ay wax la yoo xamante ni kenn mënu koo classe fenn waxi caaxaan la am na ñoo xamante ni waxi mbóosantër la ñuy wax wax joo xamante ni kenn xamul lan la mën a firi am na ñoo xamante ni waxi boroom xam-xam la ñuy wax am na ñoo xamante ni waxi bakkan la ñuy wax waxi bakkan am na ko baax ku daan wax bàyyi leen di waxee waxi bakkan ku waxee bakkan ñu tontoo la bakkan am na ñoo xamante ni waxi maa tey moom moom ci la ñuy wax am na ñoo xamante ni ni waxi xuloo maanaam kuy xuloo wax ji boo ko déggee da am waxi xuloo am koo xamante ni boo déggee ay kàddoom da nga xam ne kii kàddu yu mer lay wax am na koo xamante ni boo déggee ay kàddoom da ngay xam ne kàddu yu bañeel bañeel ci kàddu yooyu loolu la jëm bu ko defee yii yëpp nag ay kàddu la am koo xamante ni kàddu yi jaahil la ku réer koo xam xamul dara ci li muy wax day wax boo ko laajaatoon li ngay wax sax du ko wax te làmmañ lu jara teye la ñu ko yaa soxna di waxee ne mën ngaa doon tarxiis di dox bi bëgg a dëgër lu far taxaw mën a taxaw a jëlal kàttan mais làmmañ woo tarxiis moom kenn mënu ko xareete beneen bi ci toppaat euh, mooy wolof yi dañ koy méngaleeg ne làmmañ gémmañ làmmañ boo ciy wax comme balu fital lay doon balu fital bu xasee ba génn rek rëcc na moo tax sun boroom nag ak yonante bi di nu digal ñuy wax wax joo xamante ni wax ju rafet lay doon wax joo xamante ni ku ko dégg xam ne wax ju rafet la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen ñi gëm yàlla ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba na ngay wax aw yiw wala nga noppi na wax aw yiw wala nga noppi te doomu aadama ni muy jànge wax noonu lay jànge noppi noppi noonu lay jànge noppi sumtun wa jooxun wa tawilun badoo saxarun wa xuslan an suyoo bi la sax maanaam fegu lu yàgg maanaam noppi lu yàgg-yàgg noppi borom xam-xam yu lay addis day wax ne ku noppi mucc dañuy wax ne wax bu fekkoon ne dafa rafet ba mel ni or maanaam noppi mel ni jamaa mooy kon dañuy bëgg a wax rek dara darajey wax fi mu am moo tax alxuraan di wax ne waquloo linnaasi xusnan maanaam na ngeen di wax wax ju rafet mooy leen waxoon ci addis ba fee rek am na noppi yoo xamante nii nag ak saxal mbir la saxal mbir la noppi wax lay doon noppi dina doon wax noppi dina dem saxal mbir yenn boroom xam nag nee na am na noppi yoo xam noppi ci mbir sàngam moo war a àddu loolu saxal ko la saxal ko la kenn ki ne ko déedéet du saxal ko sax waaye day toll foo xamante ni mbir mi boo ci mënul dara doo ci wax noppi moo ci gën am na kilifa gu baax gu nekkoon fi nee na xam naa lu ma war a wax am naa lu ma war a wax waaye damaa gis ne wax ji amul njariñ kon wax ju amul njariñ amul benn solo mooy amul amul amul njariñ li nga war a noppi nag ak nit ñuy xeex ay àqam nga noppi ci loolu moom dug noppi loolu moom ak dug noppi am na ko wax ni ko yaa soxna waxee ne man li ma lor de li ma teg lii ma teg de mooy damaa gis dëgg ba noppi ñu bëggoon ma nëbb ko ma wax ko dëgg ko moo ma lor maanaam su ma yëgoon daal dinaa jàng noppi rek ne noppi ci mbir mi waaye dëgg kenn waru cee noppi yonante bi salaa salaam dafa wax ne man raxaa min ku munkaran fal yu xëyri bi yedd fa illa bi lisaani ku gis loo xamante ni lu la naqari la lu bon lu ñaaw munkar na nga ko dindi na nga ko dindi mu ne noo koy dindee na ko dindee ci sa làmmañ na nga ko soppi la wax sa wax dindi na ko soppi def fa leneen lu gën loolu mooy na nga ko soppee sa loxo loolu xam na ne état bi moo ko mën soo ko mënul nanga ko soppee sa làmmiñ làmmiñ mooy nga wax ko dénoncé ko mbir mi seet leneen lu gën loola nga waxe ko noonu moo tax yonent bi salaa salaam ne bu nit waxee ay wax na ko taawil juróom-ñaar fukki taawil soog koo sogo sogo sogo taawil ko boo waxee nga ne li dama waaye doo ko taawil taawil daa ñaaw rek lu ñaaw taawil ko lu rafet ba mat juróom-ñaar fukk boo demee ba gis juróom-ñaar fukk nag amoo ngànt loo ko mën a layal nga ñaanal kooku yàlla njéggal wane na daal fii fakkastalu na fi bari ñu fakkastalu ñoo xamante ni làmmañ moo leen fakkastal seen làmmañ moo leen fakkastal moo tax yonante bi salaa salaam daan wax ne ku ma moytul ñaar ku ma téel ñaar moo war la ajjana ku ma téel li nekk ci sa diggante ñaari ŋaam yi ak li nekk sa diggante ñaari poob ji ma war la àjjana li nekk ci ñaari ŋaam yu làmmañ la ci jublu ak nekk ci ñaari poob ji Euh, wax nag euh, boroom xam-xam yi seen noppi ak wax la mbir moo gis tamit ñu noppi ci am na lu tax ñu noppi ci wax nag dina wér ba noppi te du doon dëgg wax dina doon dëgg ba noppi waaye ñu ne kenn laaju la ko ak waroo a wax wax dana wér ba noppi du dëggu wax ji wér na waaye dëgguwul loolu dafa am ci nit ñi am na ñoo xamante ni seen ak jublu ci wax ji ñuy wax te yonent bi salaa salaam dafa wax ne euh, dafa mës togg mu aas ci ci ci ci ci ci warukaayam ne ko mu aas na ngeen di moytu di wax wax joo xamante ni euh, waxi kii la waxi mbóosantal ba wax la li ngeen di kafe daal mu ne ko ba li ñuy kafe sax loolu kiila mu ne ko xanaa xamoon ne nit boo gisee sawara nit dana detteelu sawara la ko ko yóbbe muy ngóobiti làmmañam mu ne ko ba lenuy kaf mu ne ko li nuy kaf mu ne ko nit dina jégloo reetaanloo benn nit dana xalambaayi ci sawara juróom-ñaar fukki nawet soog a àgg ci xóot-xóot ba kon mbas sa ñi nga xam ne ay comédien lan ak ñi nga xam ne ay agent secret lan ak ñi nga xam ne ay nit lan yoo xam ne duñ wax dëgg ak ñi nga xam ne teewuñu seen làmmañ maanduwuñu làmmañ day armu boo xamante ni ku ko xamoon li mu mën a def ci yiw lu ko raw la mën a def ci safaan ko mën a def waaye nag li gën a metti mooy nit koo xamante ni xam dëgg wax ko rek ci la amee problème loolu moom mbir mu doy waar la te loolu dafa mel ni daanaka mooy nekk fii nit di reetaan sax reetaan rek nga jóg ne man la bëgg a wax lu tax ma wax euh, dëgg si yàlla euh, moo gisee borom xam yi bala noo wax ñu jël li ñuy wax wëndeel ko juróom yoon ci seen kii mooy danoo xam ne wax ji soo xasee jóg fi ñoom ñëpp ñoo ci yem amatul contrôle mënatul ci dara moo tax moo tax ma jàpp ne ñu nekk Pastef ñu ci bëree bari am na ci ñu bëri ñoo xam mënoon nanoo seen kàddu gàtt wala seeni wax ñu bañ koy weer ci kii bi wala seeni wax ñu koy settantal bu baax koo xamante ni boo waxee dëgg sax mën na la ci amal problème waxantuma laak nag boo ko waxalee lu dul dëgg da nga am problème boo xamante ni waaw jàpp naa ne bu ngeen xoolee rek procès Mame Mbaye Niang bi Ousmane Sonko euh, déformation la wax ne moo tax ñu ciy demante mu ko ci yóbbu te moom de jàpp naa ne bu fekkee waxal nit lu amul rek mooy tax ñu yóbbu la foofa yëpp naa ne war nañ ko ca yóbbu ndax waxal na Ousmane sonk lu baree bare li mu wax ci ay nit Mimi Touré mi li mu ci wax weñ wu ci dal di nga tey te moo ne nit ñëpp a ngi toog di ko xaar te loolee mu wax de dina taxaw bis penc bis penc taxaw ñu ñu ne ko waxal li nga waxoon ci diw sàngam mu ne leen awma awma awma daa ñu ne ko sa tiflit yi mooy sa daa mu daal ne aw fu ma ko bind ñu ne ko sa mbalaan mii nga sàngoo mooy sa mbindaan loo mën a wax ba nga ne bee wadd di di liir ba ni nga demee aj sa nag bët yi da nga wax loo fi ma sa wax kon bu fekkee ne wax jooju lay toog rek ngir setal boppam ak bëgg setal boppam jàpp naa ne politicien bu demut nag ba amatul sañ-sañu wax xalaatam cim réew walla doomu aadama ji amatul xalaat wax eh, kiyam cim réew loolu jàpp naa ne lu xaw a doy waar la bu ko defee nag wax ji ñuy setantal ñuy settantal bu baax a baax a baax kii wax na xool koo xamante ni li muy wax na waxe ci niveau boo xamante ni niveau euh, defar la nit ki dina làqutu ba far jage ci nit nit dina fés di nga gis nit koo xamante fésam ak bëgg ngóora ak gàddu ak làmmiñam xamul fu mu war a waxe xamul fu mu war a te waxat boroom xam-xam yi dañoo wax ne wax dafa am bérébam ak màkkaanam ak makkaan mi makkaan mi la fa yeyoo wax ak kii moo tax waykat bu wolof bu waxoon ko ne booy wax na nga peese say wax peese ñi ngay waxal peese fa say wax di xale egg fa say wax di xale egg na nga peese waale wax ji foofu te fi tool toll danoo nekk ci àdduna boo xamante ni mën nga ubbi ci sa néeg wax wax ji xëy xëy wër àdduna bépp ñëwaat toog ci yow kooku nag booy wax war ngay wax ak kii booy waxi tamit waxal ak borom xel yi inna fi saalika li li ulil sun borom borom xel yi lay waxal borom xel yi kon kuy wax ak mbir soo ko bëggee li la ko mar a may muy làmmañ muy kàddu yu set te leer te dëggu te rafet ndax loolu lan suñu borom sant loolu lan ab yonentam sant lii nag su ma ko waxee ba noppi nag dama koy wëndeel ci sama bopp man mi nga xam ne may génne wax ji lu ci rafet ñu xam ne yàlla la lu ci baax waaye yéeney wax ji mooy bëgg lu rafet rek ñun ñëpp ñu ciy xëy di ci gontu di ko wax jàpp naa ne nag réew moo xamante ni bu demee ba cim réew boo waxee dëgg dëgg googu indil la lor nit ñi nag ñaar lañ séddalikoo dafa am koo xamante dafa mën a xam dëgg ba noppi di ko nëbb am koo xamante ni dafa mën a sulle ay neen ba ci sunu mbokk journaliste yi boo gisee nit ñi bàyyi leen ni ak ñu bari ñu wàccu leen dara taxul ñu wàccu leen lu dul dañuy xam dëgg ba noppi di wax la ca ginnaaw dëgg nit ñi nag dëgg leen bëgg ndax doomu aadama nag dëgg rek moo ko mën a moo ko ma amal njariñ fii moo ko amal àllaaxira waaw ak neen moom on le moo tax borom xam-xam bi ne yonante bi salaa salaam ne eh, damay ñaan yàlla mu xamal ma dëgg ma xam ko topp ko waaye mu xamal ma ak neen ba ma xam neen ma moytu ak neen loolu la nit ki wëre kon mbokk yi ngi taxaw fii di ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine te yaatal sunu wërsëg may nu mujj gu rafet salaamaaleykum wa Tanim TV.